bëgg nga xam mais moo tax mu bëgg jël bagage bu fekkee damay communiqué ñu wóor fekkee dafa soxla bagage ma jox ko mu wóor ñu daal fekkee రాకట్లో Ya por ver, no lo tengo. mu mel ni fii dafay bari ay accident léegi lan nga nu ci mën a wax ak looy dénk nit ñi xanaa di soññaat nit ñi fii ñu fiy gën a def parce que intersection la soo xoolee école dafa am fii yaa liyaa aussi parce que fii boulevard boo xam ne rue passante la kon oto yi war nañoo def benn am suñu mënul wax gouverneur mu indi fii ab benn autorité municipale yu mën a monter fii oto yi suñu ñëwee ba fii ñu xam ne fii tamit ab rue passante la ab intersection yu ñu mën a daw ndànk ñi génn ci kii mën a passé benn stop xool ñi war a dem bañ mën a dem ñu doog a mën a dem semaine tous les semaines y a des accidents aussi. mel ni Jakarta yi ñoo ci ëpp. waaw ñoo ci ëpp parce que tamit intersection yi la rek du ñu respecté intersection yi oto yi tamit mën nañoo tooñ comme Jakarta yi mën nañoo tooñ parce que dañuy ñëw rek burle intersection yi waaw loolu moom seetlu naa ko bu baax a baax.